donc yow lan ngay wax xalé jigéen yi nga xamantene wala Titi mi ngi leen di xaar pour jël leen ci émission Femme Plus. ah ñooñu mom dama leen di wax ñu préparer parce que ak wala Titi mom tout est possible waaw buñ na jëlé di nga fashion et tout di nga kontaan waaw ñu préparer dal jël ci jëli élan xamni wala mi ngi ñëw té mom du bayyi kenn xewul kenn ñëpp lay jël ñëpp ay nekk ci biir dal mom inshallah ñu jëli élan dal préparer wu waaw. day doomu nag macha allah balaa ñoo dugg ci salon bi dama laa bëgg laaj tuuti noo gisee sa télé régional bi nga xam ne mooy Thiès TV di télé gox bi. ah xanaa fier ci ñoom rek mu nekk fierté bu mag a mag a mag ndax nit moom da ngay gëm sa bopp waaw parce que pourquoi pas télé bi parce que tamit Thiès TV nekk na loo xamante ne bëgg nañ ko lool. waaw te nit tamit euh, da ngay jàppale sa waa dëkk li mu def ni jàppale sa dëkk la parce que mi ngi wane projet yi am si dëkk bi di wane coiffeuse yi ainsi de suite kon dañuy def di kontaan ci télé bi aussi di ñaan tamit télé bi dem ba nek lo xamanteni tamit ay télé télé lay doon ñukoy xol à travers continent bi yépp ñëpp dem ba xam ko ñom tam ñing ko leen koy ñaanal nak begg nañ ci lool en tant que tiesoise nañ ci télé bi tool initiative bu rafet lañ ci def waaw dañ jël merci. kon nogay maa bel du jour suma ma né euh ben dëkk ñaari gar na la 2000 Jakarta waye né la ben télé muy tiesti bi di nga nangu and ak man ci lool ah pourquoi pas baña nangu. Euh, nit moom mën nga ko tere lépp saf xool ak déglu te ku ne xam ne moom Thiès TV moom mooy loolu boo ko gisul dégg nga ko boo ko déggul tamit gis nga ko boo ko bañee xool tamit ñu proposé la imposé li ñu lay xool parce que li li nekk ci jamono lekk o top lañ lay wan faaw nga xool ko kontaan naa ci loolu moo fi nekk. Thiès TV moo ko yor. moo ko yor moom moom kese number one forever rek bëgg nañ lool. waaw bu ko defee nee naa damay ànd ak sama belle du jour euh, daal di ànd ak sama cameraman nee naa leen saa leen saa boo leen ma gisee rek ma taxaw di leen présenter seen émission Femme Belle Plus maa ngi ci lëkkaloog sama cameraman kooku mooy Lamine Pro mi nga xamante ne sëñ Babacar si rek la doyloo macha allah bu ko defee daf may gunge ma ànd ak sama belle daal di dugg si biir salon bi daal di koy dénk sama coiffeuse daal di saafanteeg moom aussi nuyoonteeg moom daal di leen aussi sama coiffeuse bi nga xam ne moom laa tànnal sama belle comme ayca ñu dem. Sali mang lay nuyu. mang lay fay bu baax mang ngi leen fay bu baax yeen ñep wa Sali tay wa euh, émission Femme Belle Plus tay ñoo ñu sa salon bi bëgg a jàkkaarloo ak yow. d'accord accord excellent nag jàmm ak salam Sali coiffure. waaw gis nga euh, bel bi lañ la indil macha allah la wax sa bel bi. ah ki mom macha allah moom ba dee macha allah yaañu na macha allah daal laf cat yal nañ ci yàlla eggaleeg jàmm suñu sago inshallah allah. waaw kon xam naa wax ji du bari ndax xam naa mën a wax bu ko defee dama lay bàyyi rek nga daal di mëne si bopp bi ah ak si maquillage bi kon maa ngi lay dénk sama belle du jour ba si kanam incha allah. d'accord ok ciao. a bus di fàttali yéen a émission Femme Belle plus euh, fii si télé régional Thiès TV gannaaw ba ñu ñëw fi ci suñu borom salon Sali coiffure dal di nek côté Moussante ci côté intersection bi waaye danaa dañu ñëw ci salon bi dal ci fekk ay clientèle fekk fi ay mbokam bu ko défé rek euh, damay dal di nuyoo ak ñoom saafonte ak ñom dal di waxtaan ak ñoom lu wara senté seen fi ci si biir salon bi soxna ci ma ngi lay nuyu. ma ngi lay fay. soxna ci tour bi nan la. Awa Kanté. lan nga doon si Sali ak la fi tax fi tay luma tey doon si Sali Sali sama badjan la mook sama papa ñoo bok luma fi tax nak teew rek ak yek nit Sali mënu ma wax si mom parce que maa ngi moom dañ lay tuba bi lo lo bok ak la jor mu ma yàgg maa ngi moom yag yàgg depuis ma ngi say e mu nek Babel sama badjan Adama Kanté su tabasku joté wala korité wala budul feet sax sali na ma si dina ma gën fa ñu fekk ma sama kër tégal ma ba ma rafet defar ma sama bop mënon na né chaque semaine dal sali ñëw santé ma coiffure kon kenn du mom kan kenn du mom si man sama badjan la sama xarit la sama complice la sama lepp la. kon yow tam nga di ñew si salon bi di fi defaru waaw man fi lay defaroo chaque jour fi lay defaroo suñu man dayele ba ma am magale ba ñu may ma ñëkke ba bu dara xewul sax damay ñew tok mu defaram ba ma baax mu ñibi dem sama kër tok kon lay wax Sali tagato Sali dama koy ñaanal yalla rek mo xam lu mu bëgg yalla nako yalla defal yalla na am ay salon yu salon yalla na kërëm ñukoy verser xaaliss loolu la ko ñaanal yalla ñaanal yalla na ciit cet yàlla bàyyi ñoo moom ndax ku baax la ku bëgg mbokk la salon bi boo gisee mu toll fii mbokk moo tax da defar ba nga baax te doo ko fay ma de mosuma kaa jox fukki dërëm te du man sa ñëpp la. soxna si merci beaucoup ñu amaat keneen ko xam dañ ko fi fekk si waaye dama koo def ndey dikke si diggante bi bu dëkk defee rek dama koy nuyu madame Coly naan ko nuyu nañ la. fay naa la. Euh, madame Coly lu war a tey sa teewaay fii si salon bi. sama teewaay di leen sant d'abord di leen gërëm. si geste bu rafet bi ngeen defal eh, yetu jari yetu diko sori si man di sama jabaru di sama rak sama jabar si naka sama frère bu bokal bokkal ak bay moy borom kërëm moy eh, moy sama jabar benen côté bi di sama rak parce que daf ma mago bax am yar yek nit fonk nit diko ñaanal si salon yam bi rek lim ci bëgg moko ko xam yalla nako yalla defal di wax nak euh, salon bu jara ñew la salon bu jara set si la parce que bu la défaré rek nga xamni défar na la na li di Petite Tête machallah moko moo Sénégal. <laughs> wa fofu la do ñu madame Coly da nga né sa jabal Petite Tête moko ko fan. Sénégal Petite Tête mu amu si moroom parce que man dama daan joggé Sokone di joggé kaolak di joggé fatik di ñew fi di teg si Petite Tête te fuma dem ñu ne ma Petite Tête bi ku fi jaar mané len sama chéri koko waaw mbokk téléspectateur dégg ngeen loolu kon bu ko defee ku si bëgg Petite Reine da ngay ñëw fii si Saly coiffure ndax dégg ngeen ni ko chérim bi waxee nee na Saly moo fi dàq Petite Reine fii si Sénégal loolu dinañ ko découvrir dinañ ko seet allahu rabbi leen di nuyu di leen sant ñoo ñoo ngi leen di nuyu di leen sant seen teewaay kontaan nañ ci trop kontaan nañ ci trop ndax boobu ba tey yetoo ya mi wax ne da ngeen fee war a ñëw démb laa fi jaar mi ne ma da ngeen fee war a ñëw seet si ko ñu kontaan ci trop di leen ñaanal liggéey bii ngeen sumb yal na leen ci yàlla jàppale jàppale ci mbooloom jullit Yatou Kanté nag ñoo bokk ndey ak baay mooy sama caatu yaay rakk la boo xam ne kii rakk bu ma déggal la def ma yaayam yatu du def dara loo xam ne kii yëgu ma ko dugg dara loo xam ne kii yëgu ko lépp lu muy def suba ba jant soo dina ma woo su ma ñëwlee dina jël téléphone am mbaa mu jël taxeem ñëw ba si man ñëw wax ma ko dégg dama koy ñaanal salon bi yàlla nekk ay salon salon li sëyam bi yàlla na barkeel yàlla bu mu ci gis dara lu mu ragal si barke Seydina Mohamed salaa salaam jëkkëram tamit mu nekk jëkkër ju baax jëkkër ju ko comprendre jëkkër ju ko comprendre ndaxte yatu fii na ba 2 heures di matin na fi ba trois heures du matin day ñëw weekend sax jëkkëram du mën a jot si moom ndax ay liggéeyam dégg nga kooku moom ñu ngi ko ciy ñaanal di ko mastawu ci loolu ndaxte loolu du ñëpp ko mën wax dëgg comprendre na ko jàppale na ko waa ñu ngi ñaan waaw. baax na bu euh, buñ ne diw baax na mboq yaa tax waaye neexu ba neexu sali euh, baax nga bu ko defee ñun tam dañuy gërëm say mboq si teewaay bi ñu teewaay fii ñëw accompagner la sa émission bi kon dañuy kontaan bu baax di rafet aussi seen teewaay bu ko defee rek damay dem jàkkaarloo nag sali ah di waxtaan ak moom nag si émission bi waxtaan ak moom aussi si li mu defal sama bel euh, sali maa ngi lay nuyu di la sargalaat si coiffure bi nga defal sama bel macha allah ma daal si kontaan bu baax man nit maa ngi kontaan ci yéen da ngeen ñëwee yëpp yéen a ngi jël seen temps jël seen temps mënoon ngeen ma yàqamte mais ma gën a encouragé mënu maa wax sax damay jéem rek ndax lu ma waroon wax yëpp sama sœur yi wax nañ ko sama jabar frère bi wax na ko ak sama sœur Dabakane ak Aminata Kouli waaw ma indi sama belle du jour tey macha allah euh, si temps bu xat ah temps bu bu xat sax dañ mais ma gis la nga defal ko coiffure bu rafet macha allah boo xamante na coiffure cérémonie la ko woo rek mën na fa dem buñ ko woowee mariage mën na fa dem buñ ko woowee anniversaire mën na fa dem buñ ko woowee dîner de gala mën na fa dem ban façon coiffure nga defal sama belle du jour. réer de côté laa ko defal côté ko defal. gis nga greffage bi ku am cheveux naturel mën naa la ko coiffeel ku am paquet 2500 mën na ne paquet 5000 ça dépend rek fu sa poche toll rek boo ñëwee ma defaral la ba mu baax. waaw kon yow essentiel na loxo bi set daal loxo bi la daal. kon yow coiffure bi da koo jàng Sali. waa dama koo jàng mais don la suñu famille daal. Mhm. ngeen mën coiffure sama maam dafa mënoon lépp ak yooyu. Mhm. léegi ci micro bi euh, donc Sali euh, des fois da ngay gis euh, nit ñi bu ñu amulee cheveux rek du ñu bëgg du ñu am lu ñu bëgg parce que dañuy naan bu ñu defulee cheveux rek du ñu am coiffure yu ñu bëgg ma dégg léegi nga ne greffage boo indi rek yow mën nga ko coiffer donc loolu si mën coiffure la wala si greffage bi la. si mën coiffure man moom façon greffage boo ma mënti andi mën naa la ko coiffure ba mu rafet dinaa ci def lu ma ci mën. ku ko gis dina ci am encourage pour mën a ñëw ci man pour defaru ba mu baax mhm. waaw xam nga fi mu ne nii euh, waa àdduna ngi lay xool mhm. waa Sénégal di la xool rawatina waa cees mi nga xam ne sa clientèle de fee sa li ma gis fii ay périg yoo xam ne dafa nekk si ay teg nga daal di koy monter euh, ma for si wéyu bay nii da ngay luye ay périg ku am waa ku bëgg périg dañ koy luye euh, mu nekk aussi ay clientèle indi fi seeni périg nga leen koy ñawal nu mu demee noonu ku bëgg daal ma luwe la ku amul mooy bi mun boo ñëwee ma wàññil la def luwe la ko daal. comme nga def ba mu baax. léegi luwe bi luwe bi nu muy demee du de temps bi ak boo ñëw loo indi est-ce que da nga indi pièce yooyu da koy wax nit ñi ñu mën ko xam. non nag en général ñu ma xam lu ci bëri laay luwe péri comme bu ñuy dem benn xew programme bu leen bett ak yooyu bu ñu ñëwee ma luwe leen ñu fay ma 8000 francs ma luwe leen ko. Mm-hmm. ñu demee seen programme la si lendemain bi ñu andi ko delloo si ko mm-hmm. waaw ma gis nga def aussi maquillage bu rafet maquillage boo xam ne euh, mooy tendance muy make up make up bi da nga dem jàngiwaat ko wala bokk da koo mën rek ndax damay dégg ñu naan des fois mm-hmm. euh, salon yi euh, maquillage bu ñëw dañ koy mën coiffeuse yi mais aussi am na ñoo xam ne dañuy delluwaat jàngiwaat ko moo tax ma laaj la ko eh, man école de laa génne te Adama Kanté laa génne sama sœur boobu baax ci man bañalu ma dara ba ma demee keroog ba ma ko waxee damaa jubal ci moom directement wax ko ko mu gën ma encouragé jox ma ay blouse ak yëpp mhm. ne ma bul tiit bul def dara amul benn problème tey dafa dem Dakar sa benn programme la fa am moo tax ñëw mais da doon ñëw pour teew si waaw kooku sama xarit la kooku mooy Adama Kanté borom Babel coiffure nee naa la nekk directeur complexe boobu macha allah di jigéen bu jàmbaar waaye te yemu sa nee naa la dafa regroupé coiffeuse yëpp daal leen defal association kooku nee naa leen sama xaritu bopp la waaw Adama Kanté maa ngi koy nuy de passage di nuyu Jami di nuyu Kiné di nuyu association coiffeuse yëpp maa ngi leen di nuyu macha allah bu ko defee nag nee la dinaa jëlu suwaat si yow ah, léegi rek si kanam mais balaa ñoo dem dañoo nekk si rubrique boo xam ne toj yax bi la tox yeex bi moy pas du sujet tabou lepp lo xamne ne naqari na la rek ci wàllum coiffure bi rek dang koy wax fi ñuy daal di koy xam donc Sali damay jakkalo yow laaj la lan mo la neex ak lula metti ci métier coiffure bi. métier coiffure don na lo xamantene metti na metti wu nit da ngay muñ rek sa xol toj na façon cliente bu ne ngay taseel li nga tasee ko xamantene amul problème nga tasee ko xam dang koy defara ba pare mu ne li nga ko defar nga naxanteeg moom defaraat ba day kontaan ba da ciy am kersa. ma ne ko ñun loolu lañ ñu fi tege client yi mooy roi luñ ñu ñëwee lu ñu bëgg rek lañ leen di defal. Mm-hmm. loolu la daal. loolu daal moo si metti mm-hmm. lan moo la ci neex. lépp ma ci neex. <laughs> ndax da nga koo bëgg sa xol. waaw dama koo bëgg sama xol. <laughs> bu ko defee dinaa dellu si waat si moom léegi waaye ñu daal di dem si rubrique truc et astuce tey li ma leen di indil mooy banaana ndax banaana nee naa leen ñaari astuce laa si am mais bu njëkk bi tey laa leen koy wax boo jëlee banaana xob bi ah euh, mooy der bi da nga koy jël nga daal di koy daggatee boo ko daggatee baax na pour di fomp kanam day nekk kanam yoo xam dañuy am gàq-gàq kanam yoo xam ne dunduñu day faral di dindi ay acné ñi nga xam ne dañoo diw ba mu def ay lunettes yàq seen bóori kuy bët da ngay jël banaana bi ndax dafa am acide bu ko defee rek nga daal di koy jël raxasee ko bombee ko ko ba nga xam ne dugg na si waaye nag euh, nga bàyyi durée boo xamante ne 10 minutes la ak 15 minutes nga dem rincé ko boo koy rincé nag danga nga koy rincé ak ndox mu sedd moom nga koy moo durée bi normalement 2 semaines war nga commencé gis résultat beneen yoon émission bi di ñëwaat dinaa leen wax masque euh, banaan incha allahu rabbi ngeen essayé boobu ba ma dellu si waat incha allahu rabbi bu ko defee rek ma jàkkaarloog Sali macha allah daal na la nga daal di nuyoo daal di tàggatoo daal di wax sa xaw fu mu nekk ndax gars yi mën la ñoo wër si ndax lii xam nga ne yombul macha allah lii mendi fi sama bel nga daal di koy coiffé defal ko make-up li xew si jamono xam nga ne yomb si salon bu ko defee rek euh, dama lay bàyyi nga daal di tàggatoo nag daal di wax sa clientèle yi nga xam ne saa su ne dañuy ñëw fii di defaru si damay wax sama cliente yi bu ñu ñëwee lu ñu am bu ñu amee cheveux ma defaral leen bu ñu amee greffage simple ma defaral leen ku ne rek fu sa poche toll rek boo ñëwee naa ba mu waaw ba pare ba pare doguma la dafa am sa benn njëkke bu ne madame Coly nee na yaa fi dàq petite de fii Sénégal la wax. wax na dëgg de moo am de. <laughs> petite moom dinaa ñëw nga defal ma ko. ndax ma daal di koy woon xam nga Ola Titi moom mooy dugg fu ne. bu ko defee rek àdduna dina ko gis incha allahu rabbi. waaw kon nag wax ñu fu sa salon nekk ak ñi nga bëgg a gërëm joxe sa numéro de aussi. ak sa salon aussi lu muy liggéey nga wax ko lu muy def si lan la gën a xam naa petite bi jëmee na côté mais da ngay wax aussi si lan la gën a fort. moom koy fort na perikirmarikun da visage depo da makoida pose cup tente, tudo da makoida tudo ah, da é. ama da perikirmarikun suya da visage depo da makoida kuna da lobo greg bonya da makoida fal cup da kon yow maquillage tout pose ongle pose silhouette kon nag fii um presque complexe la rek complexo né? ah, complexe né? ah. sali boca de defee que fan nga situé yow fu mu nekk foo situé wu. mi ngi fii mu sante en face station bu yàqu bi rek boo jéggee tali bi rek am na menuisier bu nekk en face si man. waaw sa numéro téléphone. 562 99 78. koy gërëm doo gërëm sëñ bi sëñ bi nga xamante ne moo la bàyyi ngay liggéey ku may gërëm. acca boobu. <laughs> maa ngi nuyu di gërëm sama borom kër bu faal tey su ma egsee fii moo tax ma egsi fi jàppale na ma suturaal na ma te lu ma bëgg ma nga ca lu ma bañ ma nga ca macha allah ay sëram bi di waxi nopp ummi ñoom ñëpp mboo na bu ñoom ñëpp bëgg nañu sama mag ji nag moom mooy sama yaay mooy sama lépp kooku moom aw ma ma koy fayee ak aw awa nday jaw sama doom ji taxaw ñoom ak daba kayta sama copine sama xale yaa ngi nii macha allah lu may liggéey dañ ma ciy jàppale lu ma laal ñu ne ma andil ma ñu nongu lépp sama loxo di ma jàppale déggal ma muñal ma ba dee macha allah yéen it aw ma seen fay suba ba léegi yéen ak samay kii di naxanteeg man di wax ak man yéen daal aw ma seen fay. waaw loolu mooy télé régional Thiès TV. tey boo ma doon wax si télé régional Thiès TV nee naa leen émission bi nga xam ne daf ko jagleel coiffeuse yi daal di koy jagleel aussi xale jigéen ñi nekk si biir Thiès moo xam jànk nga moo xam jeeg nga lan nga may wax boobu télé. man kay lu may wax boobu télé télé boobu moo mën moo mën lépp. ndax tey ñu làqatu ñu ñu mën liggéey ñëpp moo leen di génne wane seen liggéey ba lancé leen ak yooyu macha allah may soog a wax tele ni yéen a ma may fit may soog wax ndax sama salon su ma yéen ma may tey lu may kiiwee loolu. wanoo see création waaw sama création ba pare may ma fit ak yooyu daal. Mhm. yéen kay moom dama leen di ñaanal yàlla télé bi jëm kanam xéewal bu bëri ngeen gën a am ay entreprise yu bëree bëri bëri. amiin amiin amiin te dina am ndax yéen borom baax ngeen. merci beaucoup kon bu ko defee léegi damay bëgg a jàkkaarloog sama belle di jour daal di toog ak moom daal di waxtaan ak moom bala maa tàggatoo ak waaw sama belle du jour ngi pare na macha allah defal nañ ko coiffure bu rafet bu ko defee rek nogay dama ne naa gis nga li ñu la defal baa xeeboo ci sa bopp. ah déedéet musuma xeeb sama bopp kontaan naa ci torop wax dëgg yàlla borom salon bi defaral na ma ba mu rafet dalal ma waxtaan ak man wax dëgg yàlla neexal ma ba ma def ma genre ren boo xam ne daal kontaan naa ci loolu macha allah yàlla na loxo bi wér rek. Eu ah, mu mel ni yow tàmmoon di def maquillage te daf mundo nga si bëri morom ndax dafa mel ni la plupart si xale jigéen ñi tàmmuñ def maria euh, maquillage mais tey noo gisee sa maquillage bi tey. waaw franchement moom tàmmu ma ko moom lii moom make up maa ngi koy door a def mais kontaan naa ci tout cas na ma nit ñi ñu ngi koy apprécier et tout kontaan naa ci moom rafet na torop te doon boo ma doon wax ni tey ak euh, dëkk bi fu mu toll ak euh, ba ma doon wax tey lan nga loo xamante ne euh, bëgg nga jikko yi nit ñi changé ko lan nga may wax si en tant que jeune jikko boo xam ne bëgg nga ñu changé ko. ah jeunes yi moom li ñu war a changé si ñun bari na muy si jigéen ñi muy si góor ñi li ñu war a changé bari na lool judduwaat bi war nañ koo defaat bu baax a baax a baax. surtout sama mbokku jigéen ñi li ma leen di gën a conseiller mooy nañu liggéey parce que kii ma defar nii jeune la jeune la te gis nga ni mu gëmee boppam tey jii mën naa ne salon yu mag yu ñuy dégg ëppale ko dara waaw parce que li ñuy def lay def donc kii rek doy na référence ci gëm sa bopp waaw ñu gëmaat suñu bopp bu baax xamaat ñooy kan gën a fonkaat suñu culture xam ñun ñooy kan xamaat suñu bopp bu baax a baax mm-hmm. waaw loolu daal laam lu ma leen di wax gën a xamaat ñooy kan daal. waaw tey ñu nekk ci mille 2020 comme ni ma ko waxee sànq sama début émission tey boo doon souhaité 2020 euh, lan ngay souhaité population sénégalaise askan bi yëpp loo leen di souhaité looy ñaan daal mu gën a yokk ci dëkk bi. xanaa jàmm jàmm daal laay ñaan mu gën fee yokku waaw donte ñun sax moom Sénégal kenn mënu koo yëngal ndax am na lu fi xas ba nekk te kenn mënatu koo dindi ñu koy sant yàlla bu baax mais jàmm moom du doy. di wax yàlla na jàmm sax yàlla na jàmm yàgg ñi gën a góorgóorlu gën a bëggante aussi raxas xol yi ba mu set surtout saa gën a bëggante bañ a def euh, ànd rayante ginnaaw tàqalikoo jëwante gën a bëggante gën a xam ñun ñooy kan gën a jàppaat suñu bopp ba nga xamante ne réew yi nga xam ñoo ñu devancé ñu jéem leen a dab. Mm-hmm. waaw parce que ñun ñàkkuñu dara. macha allah tax ñu wara gëna gëmaat suñu bopp balaa 2021 ñu gis changement bu mag am ci dëkk bi mhm. waaw man daal loolu laay souhaité ñëpp diko ko mhm. souhaité sama bop diko ko souhaité ñëpp mhm. ñu delloo ci xel yi doli jamm ji doli liggéey yi wàññi jot bi parce que jot baaxu loolu daal la bëgg ñëpp def ko bu dee mën na nekk. waaw sa télé euh, Thiès TV télé gox bi di télé régional saxoo fii si biir Thiès jël nag ay doomu Thiès ñu fay béy seen waar di fa daan seen doole tey boobu télé loo koy wax encore une fois. télé boobu daal moom su ma doon wax ci moom fii ba suba du ma fi jóge ndax loolu mooy nga dëkkee rek naan géej gi am na ndox waaw loo xam ne moom day dem moom yaakaar naan jarul nekk di wax ndax neen doomu ñooy kenn du ko jaanal rëy bu du nga koy ñaanal mm-hmm. donc Thiès TV moom bëri ko ci mbaxtaal la pus mu dem ñaaka pus mu dem mm-hmm. waaw kon nag ca kaw ca kanam rek ci lu baax li ma waxoon suba rek laay waxaat Thiès TV daal nañ dem ba fu ñu toll continent africain Afrique bi yëpp di dégg Thiès TV di ko dégg ci kaw ca kanam rek parce que li ñuy def nii moom macha allah waaw macha allah moom kontaan nañ ci torop moom yàlla na yokk. waaw kon Nogay dañ lay bàyyi nga daal di tàggatoo gërëm ñi nga bëgg a gërëm nag ndax damay wax faral di wax saa su ne eh, télé Thiès TV boo fa toogee rek nee naa la eh, àdduna gis na la bu ko defee rek gërëmal ñi nga war a gërëm ñi nga xamante ne daal amal ngi leen njukkal tawal leen a gërëm nga gërëm leen nag. avant tout damay gërëm sama famille yi ma bàyyi depuis suba ba léegi. di gërëm sama maam li nga xamante ne bu lool moom tey ji bu ne ma toogal tam damay toog du ñëw ma koy remercier bu baax di gërëm tam sama bàjjen bu baax a baax à part loolu di gërëm borom salon bi di gërëm la yow mi nga xamante ne tamit yaa ma tànn def ma belle du jour mu nekk loo xam ne man xam naa ni loo gëm la te lu te lu nekk ci yow la tamit ma ciy bég lool la ñaanal yow tamit nga yokk am yokkute bu baax a baax a baax ba yëg ko di ñaanal caméraman bi nga xam ne moom tamit depuis ce matin moo ngi nekk ak ñun. baax bu ko dee Lamine waaw baax borom baax la wax dëgg yàlla baax na. waaw parce que mi ngi supporté suñuy caprice et tout wax dëgg yàlla borom baax la borom salon bi tamit dañ koy remercier bu baax a baax a baax ndax mën nañoo ñëw rek defal ñu affaire yooyu noonu xam nga rek ñu dem mais dafa jël temps am toppatoo ñu defaral ñu ba mu baax waaw ñun daal kontaan nañ daal lañ mën a wax wax dëgg yàlla lu fees day tuuru mëntuñ cee yokk dara macha allah rek waaw. waa xanaa sa tailleur bi na ñawal doo ko gërëm ndax sa tay baa sa fay na de macha allah dafa mel ni maroon taba nga sol xaw ma beige kooku moom mënu ma koo gërëm kooku mënu koo gërëm dama koy ñaanal rek muy laasana laasana moo koy ñaanal chaque jour dama koy bàyyeeg yàlla ak Serigne Saliou mu yaakaar yàlla nañ ko te taxaw ndax laasana moom du tailleur ci man du rakk ci man doom la ci man donc aw ma fayam dama koy ñaanal yàlla rek ndax heure bu ma kubalee fu ma dem jël pied donc dama koy ñaanal tamit ci kaw ci kanam ci lu baax rek. waaw na loxo bi wér borom ciseaux d'or amiin bu ko defee nag l'émission tire à sa fin euh, ñoo ngi tàggatoo waaye balaa maa dem dinaa remercier sama caméraman bi nga xamante ne woon moom laa àndaloon muy Lamine Pro euh, le professionnel nee naa la di remercier bu baax a baax aussi di remercier borom kër gi kooku mooy El Hadj Wade ak tout le groupe du Thiès TV euh, maa ngi leen di remercier bu baax a baax bu ko demee si aussi sama tailleur kooku mooy Ibu Samb nekk foofu sa jaxaaw juma Alpha moo génn si robe bi ku si bëgg rek bu ko defee boo ñëwee jaxaaw rek dina la ko ñëwal sa place ba di remercier aussi waa kër Sëñ fàll cosmétique bi nga xam ne gérant ba mooy Mamor Dieng maa ngi koy remercier bu baax di remercier aussi Cheikh Euh, cosmétique hein, maam Cheikh cosmétique maa ngi remercier bu baax di remercier nak sama coiffeuse bi nga xamante mom la fekk ci fi biir Moussante machallah ci intersection bi salon Sali coiffure ma daal mu daal dalal sama belle daal di koy defal ba mu rafet kon dama koy remercier bu baax di ñaan yàlla yàlla wéral loxo bi gën a yokk liggéeyam aussi di remercier sama coiffeuse boobu di maam Diarra Diouf doon raq si man maa ngi koy remercier bu baax waaye aussi du ma fàtte Marie Ndiaye mi nekk foofu ngent maa ngi koy remercier bu baax a baax awa création en ah leena nee naa ko du ma fàtte kooku waaye nag euh, di remercier ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi jàpp si émission Fambel plus de près de loin maa ngi leen di remercier du ma fàtte Jibi Bijou mi nekk marché central moo génn si accessoire yi maa ngi koy remercier